diko jaare ci turam yu sell yi ak melokaanam yu kawe yi diko ñaan moom sunu borom mu defal na tawfiq ak taysir ci aduna ak ci alakhira اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا نغنيان برم تبارك وتعالى مبوالا نتوى القرآن ñooña nga xam ne dañuy am rammog alquran yàlla na sunu borom boole ñu boole ñu ci ñi nga xam ne yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana bu ñu déggee wax dañuy seet la ca gën baax ñu topp ko ñu ngi ñaan sunu borom mu nandal sunuy xol ci leeri alquran ak leeru ngëm yàlla dellu siwaat nañ beneen yoon ci sunu bindab tafsir alquran al azim tey tombeek juróomi fan ci shahru ramadan al mubarak tombeek fukkeelu bind ak ñett ci suratul isra sunu borom mi ngi wax subhanahu wa ta'ala a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيراً ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض بق والأرض قادر على أن يخلق مثلهم ۖ أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفوراً قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مثبورا كن لا يوي موي نيك تفسير القران العظيم تومبك جيرومي فن شهر رمضان المبارك mbokki jullit yi nu ànd fàttaliku ni alquran day mooy téere su boroom bi di ay waxam di melokaan wu bokk ci ay melokaanam di kàddu yu jub yoo xam ni mboolem lu nopp di dégg alquran moo ci gën a foor moo ci gën a baax sakkan lool ci wut tiyaaba gaaw lool ci saafara ay feebar képp ku takkoog moom texe ku teqalikook moom torox képp ku ci ngoy ngoy na ci buum ak yàlla gu dëgër gi day barkeel alal day barkeel ak njoboot day barkeel aw waxtu day neexal am xel day defar jëmm li ci nekk ci ay njariñ mënee koo xam ba di ko lim téere boobu nag mbokk jullit yi di ko déglu ak di ko jàng di ko nafar ak di ko settantal bokk na ci li gaaw ci li mën a defar doomu aadama ci dund gi borom bi tabaraka wa mi ngi wax ni wama manaa annaasa an yuminu ana lan moo tere nit ñi gëm yàlla id jaahumul huda bi leen njub dikkalee yéefar yi nga xam ne ñoo weddi yonent yàlla yi weddi sunu borom sunu borom yàlla mu ni waaw ñooñu lan moo leen teree gëm muy laajab ku xam lan mooy tontu ba borom bi mu ni illa an qaalu lu dul day lañ wax ni abaasa allahu mu ndax yàlla dana yónni basharan am mbindeef ni ñun rasulan di ko def ab yonent loolu moom wërta mën a nekk xam ngeen ni sunu tafsir yi passé ba ci démb wax naa leen ni doomu aadama dëkk cim ndox lu ko yàgg jaaxal la da ko yàgg bëgg waaye gis nga yonent bu nekk nit comme yow it da ko yàgg jaaxal na loolu boo toppee alquran di nga ci fekk ay aay yu bari yu lay wat ni yéefari démb ya li nekkoon seen problème bokk na ci mooy normalement même bu yàlla doon yónni sax daa war a yónni jinne wala mu yónni malaaka wala mu sàkk meneen mbindeef yónni ko waaye du doon nit lay yónni gis ngeen ca suurtu yunus akaana linnaasi ajaban an awxayna ila rajulin minhum an andir innaasa wa bashir alladina amanu anna lahum qadama sadiqin inda rabbihim yàlla mu ni mu ndax nit ñi dañoo yéemu xaat ci yàlla wax yu gum wax yu benn waay ni ko demal nga nekk saab yonent waar nit ñi te xamal ñi gëm yàlla ni wàccuwaay yu baax ma nga leen di xaar fa seen borom dalika bi annahu kanat tatihim rusulukum bilbayinat fa qaalu abasharan yahdunana sunu borom mu ni yàgg na maa yabal ay yonent ñuy ñëw de di leen gindi waaye lu ñuy wax abasharu yahdunana am bindeef ni ñun a ah, déedéet loolu mënta nekk moo tax gis nga firawna la ñu waxoon Muusa a nu'minu li basharayni mislina wa qawmuhuma lana aabidun ah Muusa ak Haaruna neen dañoo bëgg ñun ñu gëm leen ñu di ay yonent anuminu ndax dañuy gëm li basaray ni mislina ñaari mbindeef yu mel ni ñun wa qawmuhuma ñoom seeni nit la naa abidun man la ñuy jaamu xam ngeen misra am na ñoo xamante ni dañoo jàppe woon firaaw na ab yàlla mu ni waaw nit ñi ñoom nan la ñu mën a jàppee firaaw na mu nekk yàlla ba noppi Moussa ñëw bëgg ñun ñu gëm ko gis nga lañ doon wax yonent yi in antum illa basharum misluna nekku leen lu dul ay mbindeef comme ñun turiduna an tasudduna amma kaana yaabudu abauna da ngeen a bëgg a dox suñu digganteeg la yàlla gis nga lañ doon wax Isa sax faf nag Isa dañ ko wax nag maa li haada rasul ñun dañoo xamul bii yonente yonentab lan la gis nga de maa li haada rasul bii yonente ba mu xamuñu yonentab lan la ñu ne ah, lu tax ñu ne yakulu taama day lekk li ñuy lekk bu doon suñu jamono ñun day lekk ceeb di lekk dugub wayam si fil aswaq day dox ci biir marché bi dox ak tànkam lawla unzila ilayhi malak waaye yàlla bunta woon a yabal ab malaka mu yabal malaka bu doon wax na dëgg kon gis ngeen aayaat yooyu yëpp moo tax loolu lañ doon wax yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mënoo fay judd barki démb boo njaay suñu kanam ñu xam sa démb xam sa nga xëy rek yow naan yàlla yónni na ma loolu mënta def waaye nag wax dëgg yàlla mbokk jullit yi norme yi àddina yi ni muy doxee te nangu ko waroon naa tax ñu nangu lii benn waaye nekk fii ab élève di jàng xamul dara ba matul sax ab laar la woon jamono soppeeku ba mu nekk ku yeewu xëy jàng amub liggéey foor lool kawe ñu jox ko ndombay tànk mu di ministre ñu nangul ko ko muy député ñu nangul ko ko muy njiitam réew ñu nangul ko ko muy maire ñu nangul ko ko muy im lu lu mu doon ci njiit diine yeeg adduna yi waaye bu dee mbiram diine moom gis ngeen sax daanaka boo demoon fii nga jàng affaire mécanique léegi nga ñëw foor ci bu amee lenn lu yàqu ñu ne xaar leen technicien bi ñëw léegi sax kenn du tuddati sa tur ab technicien lañ lay tuddee léegi waaye fi nekk nii boo fi doon naan da ngay jàng diine nga génn ñëw ah? boo yegsee boo ñëwee lii baaxul bi daala bu soobee yàlla boo muy muytu doo ko fekkee yow kon gis nga maanaam ñëpp am nañ liberté wu ubbeeku ci liñ jàng ba mu des ki jàng diine loolu nag xam nga ne ak jeng dëgg la waaye nag yàgg na fi ci kaw suuf kon li yàlla mu ni lan moo tee gaa yi gëm illa an qaalu lu dul dañuy wax ni abaasa allahu yàlla moo tax yónni dafa yónni basharan am mbindeef moo xam ni rasulan day nekk ab yonant qul tontu leen ni leen law kaana fil ardi bu doon daa nekk ci kaw suuf si malaikatun ay malaaka yamshuuna di dox ak seeni tànk mutma'inniina dëkk fi dal fi dëkk fi ah su doon looloo am la nazzalna danañ wàcce alayhim ci ñoom min assamaa'i bàyyi ko ca asamaan malakan rasulan ab yonent boo xam ne yonent malaaka lay doon ah wallaay suñu borom wax na dëgg bu fekkonte ne jinne yi dañuy yónni ci ñoom ñu yónni jinne waaye yonent bi jinne amul parce que jinne yi dañoo lu tax yonent bi jinne amul yonent am na kon jinne yi kuy seen yonent hmm? ah dañuy bootu ci ginnaaw nit ñi jinne yi nit ñi leen gën a foor fi ne jinne li muy raglu raglu nit a ko gën a foor di jinne li muy raglu raglu nit a ko gën a foor fi mu nekk nii li ngeen dégg ñu naan jinne day naaw ak boo yéeg mu àgg fi ak mën naa jóge fii dem fi ne jinne mën naa jóge fii mën naa jóge Amérique léegi ñëw fekkee seen tafsir bi fii léegi te du ko gis ñu pare mu bootaat ay loxoom delluwaat du du dara du dara Amérique laa inde fam nek gëna sori jinne man na faa jóge ñëw fi dugg fi seen jakk ji julli fi ñaar rak comme yéen dañuy julli comme yéen di wa anna min as alsalihuna wa minna duna zalik wa anna min al-muslimuna wa minna al alqasituna annahu sama nafar min al aljinni fa qalu inna samina qur'ana yahdi ila ar rusdi fa amanna bihi wa وإذ ilayka nafar min من al القرآن falamma hadaru qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila قوم munzirin kon jinne yi dañuy jàngal alquran bi maanaam aalamul jinn monde bu yéeme la waaye yéemewut ba àgg ci ni ko nit ñi foogee nag xam nga sénégalais moom lu mu gisut moom moom def ko njuuma lu mu mënta gis rek moom njuuma la koy def affaire day rëy ci moom dëgg la mbirum jinn rëy na waaye rëyeewut ni ko nit ñi def dañuy julli dañuy woor weeru koor dañuy séentu weer wi comme ni ngeen koy séentoo dañuy lekk dañuy naan di am jabar di am kër di xuloo di xeex ah di dem Makka di aji di umra di sarxe mboolem li ngeen di def ci ay jaamu yàlla ñoom jinne yi dañ koy def ca seen façon ci seen lekk ca seen façon nag tekki mooy dañuy julli seen julli bopp lii ñu julli la ñu ñu julli léegi nag yow nag comme mënoo leen a gis nag moo tax nga am ca problème waaye ñoom amuñu problème ñoom nag dañuy gis innahu yaraakum wa qabilu haythu na ko man ngaa nekk waa ju baax jinne ju baax ànd ak yow nekk sa xarit di la dimbali di la défendre te doo ko yëg man ngaa nekk waa ju baax jinne ju saay-saay ànd ak yow di la fitnaal di la yàqal yooyu yëpp lu am la yooyu am na ci lu aslëf leeraloon nañ ko ca suuratul jinni kon yàlla yónni gi mu yónni ab yonent sabab la ci nit ñi daal di jaaxle waaye sunu borom ni su fekkonte ni ci kaw suuf ay malaaka ñoo fi nekk yàlla day yebal yonentub malaaka wa ma arsalna min rasulin illa bi lisaani qawmihi li yubayyina lahum yonent buñ mës a yónni làkk wa aw nitam di làkk lay làkk ngir mu mën a leeral yëf yi ba mu leer yonent buy làkk lii ñu yónni ko ci ñuy làkk ñee musul am ci kaw suuf yonent bu yàlla mës a yónni rek lànk làkk ba muy làkk mooy tolloog làkk ba nit ñiy làkk waaye nag yàlla mësta yoon yonent buy làkk wolof nag mosul am ci àdduna bu amoon nag dana baax dana ah bu amoon danañ ci kontaan ndax wolof mooy sunu làkk waaye mosul am de koo fi gis ci àdduna muy làkk wolof rek du yonent déedéet yonent yàlla mësta yónni yëpp daawuñ làkk wolof leneen lañ doon làkk arab ak siriyaani yaag qibt yaag yeneen yeneen ci làkk ya doon am ak yooye waaye wolof moom bokku ca woon donte moom bu ca bokkoon it ñu jël waaye nag bokku ca nag moom ndax loolu te mooy mooy maante xam-xam comme ni ma leen ko waxee ci yu bare bare yu ñuy faral di wax nee na ci wàllu mbirum lu jëm ci ay saak ci mahdi yeeg yooyu yëpp Isa ci boppam du wàcc Afrique gii Isa Afrique ba Afrique daj waxuma Sénégal damaa ji tëb Sénégal Afrique ba Afrique daj du Eesa fi lay wàcc Afrique ba Afrique daj du Mahdi fi lay wàcc fa mu war a wàcc na mu war a mel melokaan wa mu war a mel kañ lay wàcc lu mu ñuy fekk ñu koy def lu muy sol yooyee yëpp yonent bi leeral na ko sallallahu alayhi wa sallam kon yooyu yu mat di xam la kon borom bi tabaraka wa taala mu ni su fekkoon ay malaaka fi nekk kon yonent bi malaaka la ñuy yónni gis nga sunu borom ni qul tontul ni len kafa doyna billahi ci yàlla shahidan mu nek aji sede bayni wa baynakum sama digante ak yéen defna yàlla mu nek sede yàlla xamna ku deg deg yàlla xamna ku ko degul xamna ku nango ko bañ yàlla xamna kuy diingat ak kuy contre yàlla xamna subhanahu wa taala waye yonent bi yàlla yónni mu nek muhammad xéwal la ñeel ñu laqad manna allahu ala almuminin إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتي إلى آخر الآية yàlla defal nañu xéwal gu rëy bi mu yónnee ab yonent bu tudd Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk jullit est-ce que xam ngeen ni yonent gi yonent bi bichara la woon ci waa adduna yëpp waxuma la sax meññent mi mu fi indi waaye situation jamono jëm ñëwee woon rek lam fi fekkoon xéewal la woon ci waa jamono waxuma la di ko nekk ba tey ji sunu borom ni innahu moom sunu borom kaana masul di daj nekk bi ibaadihi ci ay jaamam xobiiran di ku dañ ci kumpa lépp xam na ko basiiran di gis lépp mi ngi gis lépp moom sunu borom subhanahu wa taala loo foog ni yàlla gisu ko rek sag doye dee tax nga foog loola loo foog ni yàlla dégg ko sag doye dee tax waaye yàlla mi ngi gis lépp mi ngi dégg lépp borom bi tabaraka wa mu ni wa man yahdillahu képp koog yàlla gindi na ko fa huwa almuhtadi koy ku gindeeku ba faw wa man yudlil ku borom bàyyi ak boppam ba mu sànk falan tajida lakum doo amal awliyaa ay péete min dunihi walis suñu borom man yahdillahu ak wa man yudlil rot na ci sunu tafsir ay yoon yoon ëpp na juróom yoon yoon wu ca nekk wax naa leen mbirum hidaaya ak dolaala nii la demee inda ahli sunnati wal jamaa yàlla moo moom ñépp am sañ-sañ ci lépp lu ko neex mu def te kenn du contesté yahdi man yashaa'u bi fadlihi bu ngeen demee ci risala bu muqaddima eh, eh, eh, risala bu ibn abi zaydin al xayrawaani di téere bu siiw boo xam ne fii dañ ko fiy jàng kon doy na tegtal borom risala bokk ci ngiram imam malik bokk ci ahlu sunnati wal jamaa fii nee na ñun moom moom fonk nañ ko lool neena na di day gindi foofu nag laaj bi ma bi ma jaaxal donte jaaxle gi sax léeg la day daal di faral di dañ mooy risaala li ci nekk ci ay njariñ te dëppook sunna ni mu baree ak ñi koy jàng ni ñu wuuteeg sunna man de affaire bi jaaxal na ma te daara joo dem xam nan ko bi ma ko jaaxalee ñaari yëpp jàpp naa mu nekk tontu ba bi ci njëkk xëy na bu dee nun suñ classe bi ban koy jàng booba xamuñu sax dara booba daanaka risaala ban koy jàng léegi defe naa man defe naa ñaar fukki at yeeg juróom mat na moom woor na ma ne mat na sëkk moom manqué wul da ko ëpp waaye yeesu nag yeesu ko booba kon daanaka buñ ko génnee ci say at yow la ngay dese du bari kon doo mën a comprendre li ñuy wax kooku benn la beneen bi ci des mooy dama xamul ndax ñi koy jàngale ñooy tararare rek di firi di dem rek bu ñu paree duñ ko jëfee wa illaa boog da di téere boo xamante ni nan ko jàng te buñ ko jëfe la gis nga risaala boo ko toppee yu bare bare bari yoo xam ne lam ca saxal ak li nit ñi dund bokkul ci mbirum hidaaya dañuy yahdi man yashaau bi fadli wa yudillu man yashaau bi adli te loolu mooy pas-pasu ahlu sunna wal jamaa mooy xadis yonent sa salaam te mooy alquran it ku yàlla gindi ci ay ngëneelam ak mbaaxam dong la tege kum seetaan ba nga sànq gis nga du wax kum sànq de kum seetaan ba nga sànko seetaan lañ koy firee ci maandu teem la yàlla bi mu sàkkee nit ñi moom xam na fa yëf yay mujj xam nga da ngay dégg hadith yi wax naan ñi ñoo war dem sawar ñi ñoo war dem àjjana ah kon war nañ sawar kon lu sama yoon ah kay sa yoon mi ngi ci di moom may àtte moom xam na fa yëf yi mujj kon kay bu defee sélection kay mi ngi mel ni professeur bi nga xamante ni moo corrigé examen yi xam na ki admeeg admeegut kenn déggagul kuy premier moom xam kon kay moom fi nekk nii bu génnee lu mu wax rek loolu wér na parce que loolu nekkatut kumpa ca moom yàlla fi nit ñi nar a mujj xam na ko ku nar a baax xam na ko ku nar a baax xam na ko ba mu bindee nit ñi ba noppi dafa sëqub sëq daal di sànni fii ñi ñoo war a dem àjjana sëqub sëq sànni fii ñi ñoo war a dem parce que xam na fa affaire yi mujj waaye pour nga bañ a ñëw ëllëg naan ko man kat ba nga ma bindee sëq nga moom sëq boole ma ci ñu waa dem sawara kon man awma ci mel benn responsabilité yàlla mu ni déedéet wa hadaynaahu najdayn léegi nag bi ma la bindee pare dama laa jox nga nga nekk ku intelligent ku muus ah yemul ci loolu ma jox lam xel ba pare tànn loola inna hadaynaahu la mbaax a ngi bon a ngee imma shakiran bu la neexee santal yàlla nga topp yoonu njub wa imma kafara bu la neexee weddil kon am nga responsabilité ak yeneen ak yeneen yu lay wan ni kon nit am na responsabilité ci li muy def borom bi tabaraka wa taala mooy gindi ku ko soob waaye ci ay ngëneelam ci mbaaxam la moo tax ihdina siratal mustaqim ji ngay wax ak ko yow sooy wittar tamit allahumma ihdina fi man hadayta bu ko bu ko di fàtte allahumma inna nasaluka al huda wa tuqa gis nga al hidaya amul benn julit buy xëy suba ba ngoon di ñaan lu toll ni li muy ñaan hidaya amul ihdina siratal mustaqim ñeenti yoon tisbaar ñeenti yoon takkusaan ñetti yoon timis ñeenti yoon gee ñaari yoon fajar bokkut ak allahumma hadina fi man hadayta ca ca ca wittar ja bokkut ak inna nasaluka al huda wat maanaam li ngay ñaan ak li ngay wittar ak li ngay julli soo ko boolee hidaaya di nga ko ñaan gàtt gàtt fanweeri yoon wala ñeent fukki yoon ci bis kon loolu ëpp li ngay ñaan kon moo lay wax ne hidaaya lu am solo la mooy gindeeku suñu borom borom bi tabaraka wa taala ku mu sànq bàyyi laak sa bopp falan tajida lagu lagum du ñu am awliyaa amin duni péete ku dul suñu gi nag mooy comme gindee ko ci ngëneelam yi la koy teg sànq gi mu ngi koy teg ci maandu teem maandu teem mooy da lay seetaan xam nga bu ngëneel woon da ngay ko waaye comme ngëneel ñëwut ba ma xula a ca ca ca ndëng tege de waaye da laa seetaan moo tax nit ki daa war di ñaan yàlla bu ko suñu borom seetaan wala takilna ila anfusina tarfata aynin bul nu bàyyeeg suñu bopp lu tolloog gaawaayu xef yonent bi da ko ñaan sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon yàlla mooy ginde kon dee ko ñaan mu gindi la mooy seetaan ba nga sànq ndee ko ñaan mu musal la ci seetaan ba ngay sànq waaye sunu borom mu ni ñooñu sànku day du ñu am ku leen gindi min dunillahi wali sunu borom wa nahshuruhum danañ leen fan jiital leen yawmal qiyamati bi si yawmal qiyam ala wujuhihim ñuy doxee seen xar kanam yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na ci hadis boo xam ne imam ahmad moo ko li euh, ñu jëlee ko ci anas ibni malik bi yonent bi waxee lii saxaaba yi dañ ne ko waaw yonent bi nan la nit di doxee xar kanamam mu ne xanaa da ngeen a fàtte ni ki doxloo nit ak ñaari tànk mën naa direekuloo nit ci xar kanamam waxuma la di wax waxuma la doy waar ga waaye nu muy nekkee rek yow boo ko xalaatee da ngay tiit yéefér yi bu leen suñ borom nam mee dox loo yowmal qiyaam daf leen di juutal tànk ya féete kaw xar kanam gi mooy féete suuf di réeku yonent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa lu mu romb nag ci luy gaañe dana ko riis mu ni ka leen doxloo woon ci ay tànk moo leen di doxloo ci seen xar kanam wa naxsuruhum danañ leen fang yawma alqiyamati bi si yawma alqiyama ala wujuhihim ñuy doxe seen xar kanam umyan dañuy silmaxa fattu ay bët wa bukman dañuy muuma duñu mën a wax wa summan dañuy tëx seen nopp yi du dégg boole muuma ak silmaxa ak tëx di doxee sa xar kanam ba noppi ma waagum jahannam sawara lan jëm ah mbokk jullit lii metti na de lool sax ci ko koy xalaat kii doxee xar kanamam nopp ya déggul bët ya gisul làmmiñ wa waxul ba pare ñu ngi ko jiital jëme sawara kullama xabat saabu bu sawara si giimee rek giim mooy ab taal moo tax wolof fi wax ni giim ni xalu ndiif giim ni xalu ndiif boo demee ca àll ba ñi doon boyal dëgg-dëgg te bëgg xal yu yàgg dañuy dem ca fa nag yay neefare ñu jël fa benn neefare aw donj wu mag gis nga donj woowu boo ko taalee man nga cee taal ci guddi gi boo ko bàyyee noonu mu giim nga defee ne fay na fekk mi ngi tàkk ci biiram boo yeewoo jarul ngay wuti almet jarul ngay wuti dara moo tax ñu naan mi ngi ni giim giimaaral ni xalu ndéef xalu ndéef da koy séen ci kaw nga yaakaar ni doomu taal kese la lii du dara ndeke xalwaan ci biir nga joggi rek mu lakk la loolu mooy giim mi ngi mel ni jigéen ji toggoom yàgg mu baaral rocc matt yi saxaar mi ngi am ak i xal waaye takk-takk amut moom ngay tegi ñu taal bi dafa giim sunu borom mu ni kullama xabat saabu sawara sa giimee mel ni matt maay waaj a jeex rek zidnaahum dolli nañ leen sairan aw tàngoor wala iyaazu billah mbokk julit yi xam ngeen ni mbugalum sawara mbugal mu méttee méttee la ñun fi nekk nii dañuy dund deewaguñ moo tax xamuñ lu xew waaye ña nekk ca bàmmeel ya nga xam ni ña ca mosutit xam nañ luy mbugal ah mbokk jullit yi ñooñu balaa weeru koor wee jub si rek maa ngi gis benn cheikh bu mag ndeysaan mu ngi def waxtaan wu am solo ba jooy ci jooy yi métti mu ni gis nga ñu nekk ci armeel ya te wooroon daaw mu ni ku leen dekkaloon laaj leen conseil diw loo may conseil ci koor gi mu ni dina ne naa la dénk ba benn seconde bu mu romb lu dul def na ci jaamu yàlla mu ni loolu la lay dénk te wallaay wax na dëgg parce que ñoom xam nañ valeur bëccëgi weeru koor ak guddi weeru koor xam nañ tiyaaba tamit bu muy jariñ waa sawara mbokk jullit yi duñu noppalu duñu nelaw duñu dee duñu dund duñu noppalu duñu nelaw mbugal ma du arrêté te du am feet amul guddi amul bëccëg vingt quatre heures sur vingt quatre sept jours sur sept douze mois sur douze abadan ci biir sawar sa la ñuy nekk ñu leen lakk loolu mbokk jullit yi jàpp naa ni ku ko xam loo ñàkk ñàkk yërmande war nga yërëm sa bopp te yërëm sa bopp mooy fexee xam li suñ borom wax ni moo fay tax a dugg nga di ko moytu lam tax wax ni mooy tax a dugg àjjana nga di ca góor suñu borom ni daalika lii ngeen gis nii li muy metti metti metti jazaa'uhum mooy seen ak li ko waral mooy bi annahum ñoom kat kafaru dañoo weddi woon bi ayatina ci aayay sunu borom yi dañ koo weddi bi ñu ko weddee wa qaalu nga dégg ñu naan a ida kunna azaman moo ndax ñun bu ñu nekkee ay yaq waru faatan ba fënëx a inna la mabuusuuna moo ndax danañ ñu dekkal xalqan jadidan mbind mu bees looy gis ngeen ko ci suratul hadid gis ngeen ko ca suratul waaqia gis ngeen ko ci suratul hajj ak yeneen i saar doomu aadama bokk na ci li ko jaaxal mooy bu faatoo nan lay dekkiwaatee xam ngeen ni boo demoon tey ci armeel yi ëpp luñ fay suul da ngay suul ba sulli kàngam nit ab bopp ab oom ab tànk ab mbag ila axiri mu wóor la ni kii borom seey na bu yàgg ban at la woon kenn xamul waaye sunu borom dana ko dekkal ee eh, yéen yàpp yu ñoppati ko yi ee eh, yéen yax yu tasaaroo yi ee eh, yéen kawar yu seey yi yéen ñëpp benn bu ci nekk dellul sa place ci kàttanu sunu borom jëmm ji ne ba xër ñëpp génn wa axrajatil ardu asqalaha ida bu'athira ma fil qubur nit ki daal di nekkaat kam nekkoon wa yawma yaqulu kun fa yakun qawluhu alxaq wa lahu almulku yawma yunfaxu fi suur sunu borom mu ni gaa yi ñu ngi naan ndax danañ ñu dekkalaat meneen mbind mu bees sunu borom ni awalam yaraw xanaa amul ak taxaw seetlu ci ni anna allah alladi sunu borom yàlla mi nga xam ni xalaqa samawati moo sàkk asamaani juróom-ñaar wal arda moo sàkk suufi juróom-ñaar qaadirun aji am kattan la moom sunu borom ala an yaxluqa ci mu bind mislagum lu mel ni asamaan ak suuf ci dëgëraay kon est ce que kooku bind nit ñi dana ko jaaxal déedéet innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwa al xallaaqul alim ci beneen aaya borom bi tabaraka wa taala mu ni yàlla mi leen tàmbali woon te bind asamaan ak suuf ku am kàttan la ci mu bind lu mel ni ñoom wa jaala lakum na leen ajalan ab dig boo xam ni laa rayba fiihi sikk sàkk amu ci bu ab ba jotee rek nga daal di faat fi mu toll nii kenn ku ci nekk ci ñun yaa ngi jàkkaarlook sag dee te gisoo ko kenn ku nekk ci ñun yaa ngi jàkkaarloog sag dee te gisoo li gën a yéeme mooy amaan na ay fan moo dox sa digganteeg dee amaan na ay weer la amaan na am at la amaan na ay at la yàlla rek moo xam ajalan dig la boo xam ne laa rey ba fii sikk sakk amu ci ku sab dig jeex rek nga tàbbi ci sa kàmb fa aba mu daal di bañ azzaalimuuna tooñkat yi illa kufuuran lu dul rek ñi dañuy weddi yàlla subhanahu wa taala borom bi tabaraka wa taala mu ni qul waxal gaa yi ni leen law antum su doon de yéen day tamlikuuna yéen a moom mbaa ngeen yore xazaina rahmati rabbi magasin xéewal yi sama borom yàlla yi idal la am saktum kon de di ngeen téye seen loxo xasyatal infaqi ngir ragal ak ñàkk wa kaana al insaanu doomu aadama dafa nekk koo xam ni xatuuran ku naya naya nay la aay jooju mooy bu fekkonte ni séddale xéewal taw beeg wërsëg beeg yooyu postu yeeg ndomba tànk yeeg pal yi yàlla mu ni su doon ci loxol dit laa ko teg kon ba léegi téye na loxoom moo tax bokk na ci li borom pas-pas di xalaat mu di ko gën a neex suñu borom mooy bit bu waa adduna yàlla tegu ko ci loxol nit déedéet gis nga bit budget am réew biñ ko tegee ci loxol benn nit ca la saax saaxee tàmbali waaye bit budget adduna biñ ko tegee ci borom kun fa yakun moo taxit fu sa yëf yàqu rek mu mu fëlal la beneen buntu rek ay pax yu bari ngay am bis bu ñu la dàqee fenn ba nga yaakaar dootoo am liggéey boo xëyee sax boo jullee fajar ba dafa taas nga biddanti keroog jooju ngay am feneen parce que sa wërsëg mu jeex rek beneen bunt ba mu war a jaar fëllaat borom bi tabaraka wa taala mu ni su ma jëmoon jëloon teg ko ci loxol doomu aadama <laughs> xam ngeen ni moos ku yoroon xewalu taw bi xam dëkk boo mere da nga naan ne bu leen ruuj fi mu nekk nii boo mere woon ab dëkk léegi ca Saalum mbaa ca Kajoor mbaa ca peneen da ngay bind ab lettre mbaa nga yónni ndaw rek ñu ne bu ngeen demee neen waa dëkk bu leen ruuj ndax ren dinaa taw te duma leen tawal parce que dama leen a mere waaye nag alhamdulilah yàlla teg ko ci loxol doomu aadama yow ki nga xulool nga xam ne yéeg naag wàcceeg yow yow kooku bu yoroon sa ruu jóge nga fi kooku bu yoroon sa wërsëg doo fayee ko salaire weer weer wi waaye borom bi tabaraka wa taala mu ni maa ko téyel sama bopp yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir ah inna allah huwa razaqu zul quwati almatin ah yàlla mooy wërsëgal mooy maye yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir sunu borom mu ni wala walaqad aatayna nun yàlla joxoon nañ muusa yonent yàlla muusa tis'a ayatin juróom ñeenti kawtéef bayyinaatin yu leer nañ di ay kéemtaan kan moo may fàttali juróom ñaar yooyu juróom ñaari kawtéefi kéemaan yi suñu borom tudd ci alquran te joxoon na ko yonent yàlla muusa juróom ñeent ah yat wi defoon yi deret ja mbott hmm? ya ràmm ya ñii xamuñu li ràmm de waxal olof ñii xamuñu ràmm de xam naa ñii xamuñu ko laa dama ne waxal ñi ñii xamuñu ñii ràmm de waaw nga xam ni teeñ yaa ko waraloon waaw ak lan loxo bi fa axraja yadahu jeex na jeexul de bëtu ndox ya ak ban ah muy ak wax yim daan wax ak sun borom boobu ci la bokk est-ce que de waaye est-ce que ci juróom xankay kaawteef la borom xam-xam yi dañuy wax ni juróom-ñeent la sunu borom tudd waaye tekkiwul ni juróom-ñeent rek lañ ko jox ndax borom xam-xam yi lim juróom-ñeent yi wax ak sunu borom duñ ko ci limaale dégg dégg su wax yooyu yëpp duñ ko ci limaale waaye am na yeneen sax yu yu ca bokk yoo xam ne gis nga Moussa alayhi salaam yonent bu yéeme la ak doole ji ko sunu borom jox ci kéemaan la bokk te kenn du ko limaale tisaa ayatin bayinaat borom bi tudd na ko ca suuratul suuratul aaraaf suuratul aaraaf sunu borom waaye ñii xanaa dañoo xiif koor gi da leen jàpp xanaa ca suuratul aaraaf sunu borom tudd na ko benn bennal ko fa ba mu yegg mbokk jullit yi Moussa yonent bu yéeme la woon yonent bu yéeme la woon moom Moussa ca Kahf ca Maryam ca Taaha ca Anbiya ba ca suara ba ca nam la ba ca qasas ba ca hal ataaka hadisu Moussa na daaw rabbu yooyu yëpp biñ koy tafsir gis ngeen nettali Moussa ci boppam dari nettali boo xam ni wax dëgg yàlla aw neexit da cee am maanaam nit ki da koy déglu bis bu nekk rek ay njàngale yu bees di gën a ñëw ci sax ci sam xel da koy déglu di gën a bëgg yant yàlla Moussa waaye da koy déglu di gën a gëm yàlla da koy déglu di gën a yeewu ci mbiru àdduna xam ngeen ne Moussa ku yéeme woon la xam ngeen ne xàccub korosé ni ku tipp nit mu daanu dee <laughs> door mu daanu moom dégg nañ ko fay dóor mu dee bëriwul lu muy am de te en général dóor mu dee yi nga fi dégg yëpp da ngay après ñu ne daa amoon cardiaque ak daa amoon lii ak daa amoon waaye dóor rek mu ni tipp dee loolu loolu jooju doole bari na de ñaareel bi mooy Moussa alayhi salaatu wa salaam ku fiiroon la ci diine Moussa li wala fi naan salaana gën a gaaw a mer waaye boo ko boo ko laalul du jooy salaana gën a gaaw a jooy waaye salaan goo toog rek naan salaan gaa ngi salaan gaa ngi du nàcc waaye boo koy jege di ko riisu rek mu commencé génn meen mu weex gis nga Muusa saa boo masaana xotti ormay diine da yaakaar ni kii dafa teqale ko sago moo tax gis ngeen ba yëf ya amee fekk digganteem ak magam la muy Haarun poñe la ko def xëcc kawari sikkim bi kawari bopp bi gësëm ko bañ naan tey mu rey ko ngir lan ngir daa jàpp ni moom moo seetaan ba gaa yi di jaamu yëkk wi ca la ko ngóor sa ni yaa yab na umma yow sama doomi ndey ñu bari ci loolu la sukkandiku di wax ne bokkuñu woon baay ak yaay ahankay ñu bokk ndey ak baay Moussa Kaarun ñoo bokk ndey ak baay dadi ci wàllu sentiment doomi ndey da ci am situation boo fa tolloo mooy gën a fort ci défendre la ak comprendre la ka doomi baay moo tax mu jëfandikoo bokk giñ bokk yaay ndax yaay dafa fort de yëpp na umma yow ma bokkal benn ndey Moussa alayhi salaatu wasalaam buur bi gën a say saay ci buur yi muy na gën a jaaxal adduna la dajeloon waaye borom bi jox ko ci ay kéemaan yooyu ngeen dégg ñu lim ah teeñ ya ànd ak ràmm ma ah mbott ya deret ja ah njéeréer ya ndox ma yat wa ba jaan ja gis nga ila axiri ay kéemaan yoo xam ni sun borom joxoon na ko ku dëgëroon fit la nag gis nga buñ nee la yaa dëgër fit ni yonent yàlla Moussa tagg nan la fa tagg yam nag ci dëgër fit ak a dëgër fit ak a ñemeñ yonent bi sax sallallahu alayhi wa sallam ku fonkoon Moussa la même li fonk yonentam ak fonkeelam ci Moussa day feeñ ci biir ay waxam dundam lu mat di jàng la lu mat di nafar la borom bi mu ni man maa jëloon juróom-ñeenti kéemaan jox ko Moussa te xam ngeen li mu am moom rek am ci yonent yi Ibrahima ñu ne xalilullah Moussa te yonent yi nag kenn ku ci nekk sunu borom defal na la jagoo de gis nga ca Idrissa wa rafaanahu makaanan aliyan ca Souleymane wali Souleymane ar-riiha ca Daawuda wa alannaa lahu al-hadiid ak fafahhamnaahaa Souleymane wa kullan aataynaa hukman wa ilma ca Isa yubri'u al-akmaa wal abrasa wa yuhyi al-mawtaa bi iznillah Moussa nag gis ngeen mi ngi di gis nga yonent bu yàlla yónni jox na ko ci ay kaawteef ak i kéemaan Saalix nag gëléem ga naaqata Allahi wa suqyaaha gis nga. noonu nga koy toppee yonent boo dem rek boo ko yëgeeg boo ko yëgul am na kéemaan yu ko suñ borom joxoon yu mu doon àndal Moussa nag alayhi salaatu salaam dañuy wax ni ci ñi gënoon a bari ay kaawteef yu ko suñ borom jox xam ngeen jékki-jékki muy taw deret <coughs> dëkk bi fees dell ki njéeréer ah, ay teeña ki lu kenn xamut ci feebar yi wagg a commencé juddu ah ak yeneen ak yeneen ci ay kéemaan yoo xam ni wax dëgg yàlla <coughs> kéemaan yu doy waar la sunu borom mu ni fas al laajal bani israil ak giir ak banu israil laaj leen is jaagum firawna is jaagum ba leen Muusa dikkalee fa qaala lahu firawna firawna ni ko inni man kat la azunnuka dama yaakaar ne yaa Muusa yow Muusa masxuuran dan laa njabar gis nga firawna firawna daa saay saay rek firawna moo la gën a xam ni yàlla nga ci asamaan naa la gën a xam ni Moussa yàllaa ko yónni Firawna la gën a xam ni Moussa kenn njabaru ko gis nga alquran topp ko dan laa njabar ma xooli kaw asamaan xooli yàlla kuy seen borom yàlla fat yooyu yëpp muy wax boo ko xoolee waxi tay taylu kese la moo la gën a xam ni yàllaa ngi ci asamaan misaal boobu yàgg naa ko fay joxe xam ngeen ni yow kay yàllaa ngi ci asamaan gëmoo ko looy tabax lu am taax kay wax dëgg yàlla néeg baa ngi nii bonkalum jaan moo fi nekk nga ne du dëgg waaye jox leen ma yat bi ma yóbbaale kay boo gëmutit genn wàllu gëm am na loolu yóbbaale yat kon kay demal rek yàlla ngi ci asamaan muy néew fa xëy ci suba sa ne yaa haamaanu bni li sarxan léegi dama bëgg nga tabaxal ma am taaxam kaw la laalli ablugul asbab asbab alsamawat fa attalia ila ilahi moussa yàlla moussa ji laa bëgg a yërndu ba xam te sax way ni laa zunnu kaadiban ba nga xamee ni kaadiban kay énergie bi nga yàq lu muy jari moo lay wan ni kon lam yazunnuhu kaadiban xam na ni fenu nit ñi lay gëlëm loo rek gis nga wama rabbul alamin moom lu yàlla man maa yàlla man maa yàlla la doon wax moom xam nañ du yàlla de gis nga de ba mu naan firaaw na Moussa dañ daan njabar firaaw na dub dof de gis nga yéen firaaw na firaaw na daa réew saay saay waaye dofut de ko xel firaaw na dafa réew dafa saay saay waaye ku amum xel la li lay wan ni mooy boo xoolee Égypte ni mu rëyee nguuram geeg ni mu yaatoo ni mu tënkee nit ñi ah subhanallah da ngay dégg dictature man leen ñii de bu ñu gisoon firaw na da nga xam ne kon dictature xanaa dañ koy double ba muy dix fois doog koy jox firaw fa fastaxafa qawmahu fa ataauu moom daa passé dictature daa bëgg maanaam firaw na ci boppam daa bëgg moom ni muy xalaatee population bi di xalaatee noonu loolu ci alquran de ci alquran gis nga de wa ma urikum illa ma ara jarul ngeen di xalaat xalaatal naa leen ba pare ah wax dëgg yàlla loolu nag moom loolu yéeme de maa uriikum illaa maa ara jarul sax ngeen di xalaat parce que man sama xel bi doy na pour gérer dëkk bi xam nga ni loolu kay mooy maanaam gis nga dafa bokk ci xeeti coloniser yi gën a garaaw mooy coloniser am xel gis nga bu njëkkoon bu njëkkoon gars yi buñ daan coloniser ah dañ doon coloniser am xel nit ki fexe ba doo xalaat doo def lenn bi ñu xamee ni xel yi rëcc na leen ci lañ may yi indépendance seet beneen système colonisation gis nga xel mi saa boo ko coloniser rek nit ki daanaka du xalaat maa uriikum illa ma ara système maanaam waa ji moom système maa uriikum illa ma ara lay doxal mooy réew moom jërul ñuy xalaat xalaatal nañ ñu ba pare nga xam ne lu ñu wax rek nga ne lu ci waa ji wax loolu moom musiba la ci diine musiba la ci àdduna wa maa hadiikum illaa sabiila rasaad moom lu ma rëdd rek lu baax lay doon booy boo na seen xel dal waa dëkk bi yëpp gëm ko fastaxaffa qawmahu mu not nit ñi jaxase seen xel yi fa ataauhu ba bi ji topp innahum kaanu qawman fasiqin ay saay saay lañ comme moom borom bi tabaraka wa taala mu ni firawna ni Muusa inni man firawna kat la azunnuka dama yaakaar ni yaa Muusa masxura te li lay wan ni ba léegi gis nga alquran di ko tadabbur ak am solo gis nga li lay wan ni ba léegi firaaw na gëmul sax li muy wax waaw moom lan moo tax lu mu wax ñaari baat rek mu ne la azun dama yaakaar yéen yaakaar ngeen ne ku ku xelam nekk ci ku dal wóolu li ngay wax ñaari baat yooyu nete ngeen yaakaar naa ni naa foog naa naa boo nemee amaana yooyu fas fasul dara kenn du ci benn at wa inni la azunu kaziba inni la azunuka ya Musa moom daal foo muy wax ak Musa rek danaa ko dama yaakaar ni da nangam dama yaakaar ne moom lu tax lu mu am dogu ci mbiram Moussa moo lay wan ni kon moom gëmul sax li muy wax moo tax borom bi tabaraka wa taala mu ni nee na ko inni la azunnuka ya muusa dama yaakaar ne yow Moussa mii masxuran dañ laa njabar qaala Moussa tontu ni ko laqad alimta yaa ko gën a tay laqad alimta mooy tekki yaa gën a tay tay li ngay nii yaa ko a tayaatoo xaw xam nga waaye gis nga Moussa ci boppam ni mu wóoree ni yàlla moo ko yónni noonu la ko wóoree ni firaana day tay tay laqad alimta yaa gën a tay ma anzala haulaai lii nii kenn wàccewu ko fi illa rabbu samawati wal ard lu dul borom asamaan ak suuf suuf si jinne yi nit ñi montagne yi biddéew mboolem li nga gis ci kaw suuf kenn wàccewu ko rab rabbu samawati wal ard basaira mbir yi leer na ci yow ba leer nañ yaa ko gën a tey wa inni la azunnuka man mi comme da yaakaar ni man dañ maa njabar wa inni man it sax nag la azunnuka ya firawna masbura dama yaakaar yow da ngaa alku yow it fii laa di waxee ne gis nga Moussa néew na lu muy fayu daawa loola laaj situation bu nekk ak lam laaj est-ce que xam ngeen ni Firawna wax na lu gën a garaaw lii Moussa te Moussa fayiwut lan la ko wax lu gën a garaaw lii te fayiwut déedéet loolu suñu borom la ko wax lan la ko wax lu jëm ci jëmmam ji tey la jërul may laaj benn laaj gaa yi daa mel koor gi jàpp na leen de sallallahu ala muhammad alam nurabbika fina walidan wa labisa fina fi umrika sinina kële xanaa daa xëdd xëdd bu foor maa la yar fii fii nga doon def nangam ak tudd loo xamante ni kuñ ko tuddal nga jug xeex wante minal kaafiriin nga nekk yéefar xamoo dara tey nga ñëw fii nan danga may ab yonant wax yooyu garaaw na de dama lay génn dëkk bi dama lay nangam di wax ay wax yi menace waaye Moussa daawu ko tontu waaye bañ yegsee ca point final ba mu xam ni kii day tay taylu nag laqad alimta ba mu yegsee kii day taytaylu kuy tay taytaylu ak kuy dof doflu ak kuy diingat ñett ñii kuy taytaylu kuy dof doflu ak kuy diingat ñooñu ci seen jëmmi bopp étape ba nga tolloon ca xekk ma dangay yéegaat tuuti mooy faw nga wax ak ñoom lu leen wedam loo loolu la ñuy tuddee ifham wedam loo leen bañ mën a noppi te it nag seetlu li ma la wax histoire Moussa boo ko toppee gis nga ba inni la azunnuka masxuran amee inni la azunnuka masburan am rek cala la guerre bi tàkk ko ginnaaw masburan ak masxuran moom tëkkoonte ba ca géej ga rek moo ci topp waaye histoire Moussa li ngay dégg lépp masxuran masburan fa la tëkkoonte ba tàmbali ah man ngay tëkku ki ni ko ama ah, it man ngay tëkku léegi nag tëkkoonte bi tàmbale léegi nag kenn ku ci nekk nag war a mën sab sa wane sa doole foofa nag ba jot war a wane doole jotee nag sunu borom mu ni fa araada firawna daal di bëgg an yastafizzahum mu daal leen istifzaz mooy démb de tafsiram naak ak bërkaati démb wa in la yastafizunaka min al ardi li yuxrijuka minha kon kay suba nañ bañ a tafsir ñu nafar li passé cokkaas mu di ko cokkaas ki lay cokkaas kay léegi loolu mooy cokkaas maanaam di jéem a cokkaas nit ki boo cokkaas la provoqué la tëkku la menace la baat yooyu yëpp boo ko ci tekkee da koy tekki maanaam commencé di indi ay cokkaas ak di ko menacé di ko ay wax yu bon ak di ko tëkkoog di ko tiital ak ah di commencé indi ay jafeñ-jafeñ fa agraqnaahu sunu borom yàlla mu ni faf yëf ya ma jeexal ko nag fa agraqnaahu ci lañ ko labale wa man maahu ak mboolem ku ànd ak moom jamian ñoom ñépp ci la coow li commencé na préparé ab armam armeem bëgga songu Muusa yàlla wax Muusa ni ko waxal gaay yi buñ fanaan ci dëkk bi fa asri bi ahlik fa asri bi ibadi laylan yaag sama jaam ñi rañaan leen gundi innakum muttabauna te bu ngeen ko defee firawna buy xëy di leen topp watrukil bahra rahwan géej ga fan jëm bàyyi ko noonu yoon wa mu nu yàmbalang innahum mughraqun ñëpp lay labal <laughs> allahu akbar yii ay digla de moo tax newoon naa leen badar ci boppam jullit ñi am na ci ñoo xam ne xamoon nañ ne dañuy gañe te xeex ba tàmbaleegul ndax sa yuhzamul jamaa yoo leen dubar ca nangug ñaan ga bokk bi ay ji wàccee xeex ba doog a tàmbali watrukil bahri rahwan ji yàlla wax na Moussa loolu moo tax bi mu yegsee ba ca géej ga firaaw na daal di yeewu ku ku nemmeeku dëkkandoom ba ba ànd ak rek gis ni buub nay bagaasam bayu fi cin bayu fi dara mu daal da yeewu rek gis sa waay buntu néegam ni yàmbalang matelas baag mer gàddu gaag cin yaag lépp yóbbu na ko Firawna daal fi mu toog ba mu yàgg rek kalaama yi commencé bari waa ana Moussa waa ana ñu àndaloon koo laaj rek affaire gars yi ni mes ni menteñ benn waay ni ñoom dañoo génn démb lañ daw Firawna takk armée bi ci saa si ñu topp leen gis nga li lay wan ni yàlla ku man la topp nañ leen ba ñii di seen ñee ba gars yi naa ko inna la mudrakun tey ñu dañuy dab di mu ni kalla inna maaya rabbi sa yahdi yàllaa ngi ànd ak man dana ma gindi bi ñu yegsee ba ci géej mu wóor la ni fii géej la te nit ñi moom du ñu naan du du du du du nu feey te dañuy lab mbaa ñu am pexe yàlla mu ne ko an dër bi a al bahra jëlal sa yar nga dóor ko ci géej gi fan falaq Moussa ne tay wi ci géej gi fan falaq géej gi ne xatatateet xottee ko ay yoon ndaw autoroute bu gaaw lii moom ñuy defar autoroute ñëpp war nañoo xam ne bii moom gaaw na de aw yat nga ni ko tell ci ndox mu ni xatatataat fan fala def fukki yoon ak ñaar fa kaana kullu firqin ka tawdil azim xeeti autoroute yi ngay gis nii suñu wara mu ni yu ko gën a yaatu gën ko xam nga tawd gis nga montagne ni mel ak tawd montagne mi ngi mel ni daal aw yoon woo xam ne dañ ko xam nga léegi sax nit ñaa ngi koy jéem a def ñëw fekk fu montagne au lieu que oto yi yéeg ñu xar montagne suñu borom mu ni ndox mi yàlla ne da koo baare ka taw di la azim da ngay fëgg ndox mi mu ni kek kekkaaral mel ni du ndox ndax ka taw di la azim mbir mi simple de affaire du ay lépp du affaire yi ñuy janaar nii rek déedéet maanaam da ngay fëgg sa nii nga mel ni ab miir ngay fëgg parce que yàlla mu ni ka taw di la azim comme montagne bu dëgër wa azlafna tamal akharin wa anjayna musa wa maahu ajmain ñëpp daal di mucc bañ jàllee ba fële firaaw na ñëw ndeysaan ak ak li wolof yi naan géwél bu reppee ci ab xare lum jiin xeeb ko firaaw na ay paa nee nañ ko firaaw na Moussa mii de boo ko toppee ba ci géej gi saye ba nga wàññeeku kii jarul topp de ndax ñun ñii kat gudd nan fan de waaye géej gii mosuñu ko gis mu defi yoon lii wóorut de eh, bu ma ameer de waay daal lay wiccax la ko te xam nga ni njiit moom bu la waxee loolu moom dootoo waxati yow ñetti nit wala lu ko mat dànkaafu nañ ko pour mu dugg mu dëgër bopp parce que daa reppoon moo tax muy jiin jëm ca géej ga waaye ba demee ba ca millier ba sunu borom daal di fatt fii fatt fële bàyyi leen espace su sew a sew sew soo xam ni sum waay daanaka mu ne su faa xat sax dañuy xat-xat loo su na mu ne naam bi nekkee ci kaw suuf da yaa waxal ana rabbukumul aala léegi nag nekkatuñ ci kaw suuf si ñu ngi ci kaw ndox mi léegi nag moom yow loo ci xam firawna ni gees yaakaar ni <laughs> am bii gees lu mu doon xool yoon wi bi mu ne gees affaire bi ni mes su mooy mel ni ay lépp mu sànni bët yi ca kanam affaire bi maase muy seen Moussa mu xool ci kaw xool ci suuf xam ne fi mu nekk nii moom li war a fi naan jaaxaan baaxee jaaxaan jeex na de mu ne amantu billazi amana bihi banu israil man tam li waa banu israil gëm ñu bari dañuy wax ne gëm na yàlla foofu waaye moom li mu wax sax daa nekkatul ngëm même bu nekkee ngëm moom li mu wax ngëm ndax moom gëm naa li waa banu israil gëm te waa banu israil ñoom moom lañ gëm kon moom xanaa man maa gën nekk yàlla lay gën a waxati di maanaam moom li mu wax sax erreur la waaye abdullah ibn abbas nee na booba jibril mi ngi ko jéppee jéppee jéppi bay jël ndox mi di ko as di ko xalab ci kanam gi ngir bañ rek mu wax laa ilaha illa allah xam nga ni jibril rek ni ma amee yërmande bu ko muy def noonu kay xam nga ni kooku bam na de kooku bon na de foofu muy nakk nakkal nag sunu borom ni fa agraqnaahu ca lañ ko labalee fa agraqnaahu li lay wan ni islaam kenn du ko jàng ci ay film gis nga seen film yii moom bu ndee ba film bay jeex film firaaw na buy jeex firaaw na day génn dem këram moom bokkul ci ñi lab de daa génn loolu lañ wax l'islam kenn du ko jàng ci ay film loolu moom boo gëmee rek mooy weddi nga alxuraan yow ba pare moom fa agraqnaahu yàlla mu ni lab na wa man maahu ak ñu ànd ak moom an ñëpp ñoo bokk lab ba ñu labee ba noppi nag ci yàlla ni ko fal yow mënu najjika bi bananika léegi tey nag sa yaram bi du yàqu mbokk ji loolu yéeme na de ba fin toll nii tey boo demoon masra gii muy Égypte ci seen barab yooye ñuy deñ ci ay euh, archive ñu koy tuddee matxaf ci ci ci ci arab muy musée ci français am na barab yoo xam ne firaw du firaw na kese de ay mbir yu yàgg boo demee Turquie am na fa boo demee Madina am na fa boo demee Makka am na fa boo demee Syrie am na fa boo demee Masra am na fa loolu la ñuy tuddee musée muy matxaf nga xam ne ay archive lañ fay denc archive yi ay jaatilaak ay nangam waaye archive nit moom firaaw na rek lañ ko defal firaaw na rek lañ ko defal nga xamante ni ak nit la mu tëdd subhanallah alazim yow daanaka firaw na rek diggante lo baaraam bi ak mbagg mi xaw tuuti mu tolloog sa tànk bi ak sa ndigg yow nga xam ni nit ku rëy la woon njool fuuy réew alku yàqu waaye borom bi suba tabaraka wa taala gis nga li mu ko def li takuna li man xalfaka aaya ngir mu nekk kéemaan ci ñun ba tey jii li man xalfaka gis nga ba tey jii firaaw na day continuer nekk fam nekk waaye nag sawara sang koy fekk foofa de annaaru yuraduna alayha guduwan wa asiya yàlla mu ne ñu ngi koy mbugal suba di ko bugal ngoon wa yawma taqumu saa bu àllaaxira na ñu ne adxilu ala firawna ashadda al azab gis kon yooyu ay kéemaan la yoo xam ni yu mat di bàyyi xel la saa bu ko nit ki jàng ci alquran da ciy dolleeku yéemu da ciy dolleeku yéemu di dolli yéemu ci borom tabaraka wa taala xam ni sunu borom ku am kàttan la ku man la gis nga nam tëddee boo demee ba tiim ko ci ngay xam ne xeeti nit yooyu rëy na rëyoon nañ de <laughs> fan yi passé maa ngi gis ci seen groupe yi whatsapp yi fii ci côté Mbour xaw ma ñu ni fala armeel ab kii nekk yonent ci yàlla Suwayb <laughs> waaw benn barab photo baa ngi fi xam naa ni ki ko defar nag ku muus la gis nga sénégalais sénégalais sénégalais xel mi rëy na de armel ba de daanaka xaw tuuti kon guddaay bi tol na ni koñ bee ak koñ bii ñu miire ko def ko moom ñun suñu armel ni ñu koy tabaxee affaire noonu la guddee ñu ne armel yoon ci yàlla Suwaybu la mu ndax Suwaybu mas naa teg tànk Afrique gi maanaam yëpp yi da toog ba mu yàgg yow danga nga dul xam nit ñi moom ak ndox da leen dugg wala jinne da leen a yooyu yëpp nag lay tax réer googu nit ki di ci nekk mooy jàng ñàkk jàng alquran wala ñàkk topp yoonu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nu suñu borom mu defal ñu tawfiq defal ñu dégg ak topp mbokk yi dañ doon sàkku tafsir bi suñ defee altine ba àllarba alxamis ñu defee ko ci jàkk jële kon suba insha allah ci jàkk jële la ñuy tafsiree wal ilmu inda allahi taala wa sallallahu sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain